comme dañu mag ñi lañ mënul jappalé waxtu ma la ñun ñi nga xamantene ni nii xam nga moy lolu quoi mais rak sant yalla day ñew loolu sant yàlla de toute façon ah, non man man de ma ngi jéem man de li ma ci man man sama côté dina jëm de sama digënté ak mëru tingé ji muy yew ak muy keneen li ma ci man hmm. dina ko jéem non la démé rek na gars ñew ñëw ñu bëri bàyyi mbeur mi tuuti quoi ben instant ñëw dugg ci sa vie privée quoi ben instant euh dama naan rek euh ah, tiyan da ngay sétane football football ah, non li ma koy seetaan nag bariwul di nga seetaan football bariwul. déedéet bariwul. mais di nga seetaan nawetaan tam. waaw nawetaan moom boobu dama koy seetaan ndax sama équipe. d' accord léegi dama ne football rek football nawetaan yu équipe nationale Sénégal championnat wala fu mu mënti doon football la ñuy waxtaan. Hmm. ban équipe mooy sa équipe. ban équipe mooy sama équipe si équipe bu équipe yam. équipe yëpp nawetaan yu équipe nationale championnat fu mu mënti doon. <laughs> non mais man nag. sa équipe bu dee championnat du ma ko seetaan. déggoo li ma la wax mais bu dee équipe nawetaan lépp gi mooy sama équipe. équipe bu mag jeex na jeex na ban équipe mooy sa équipe tontu ma. lébu gi. lébu gi mooy sa équipe. équipe bu mag bi. ban championnat lañ nekk championnat Espagne wala France wala Allemagne wala ban championnat non lébu gi nawetaan la. nawetaan waaw nawetaan lañ toll fu mu ne nii ñu ngi ci nawetaan. nawetaan ban zone. lébu gi ban zone la Zone sax. zone. zone. 2C zone 2B. lañ nekk quoi tamit fii. Tëngéej waaw daaw moo jël coupe bi. mais lébu gi fan lañ toll. demal nga tapé eh, YouTube nga laaj lébu gi. di nga gis boo tapé YouTube lébu gi rek mhm. ASC lébu gi rek mhm. di nga xam kan mooy lébu gi d'accord euh, ban joueur mooy sa joueur si joueur sénégalais yi wala wërngal këpp àdduna wërngal këpp non bu fekkee ne bu fekkee Sénégal bu fekkee équipe nationale ban joueur mooy sa joueur bu fekkee si équipe nationale bi kuy sama joueur kii mooy sama joueur nu di sax mhm. Idrissa Gana Gueye man mooy sama joueur ah Gana mooy sa joueur mooy sama joueur waaw waaw mooy sama joueur ñu avancé tuuti euh, kan mooy sa waykat. waykat. <laughs> kan mooy way nga kontaan ko xam ne. non man moom Waly laay déglu. Waly Seck waaw Waly Seck laay ah, déglu laa moom coppet. dëgg yàlla Faramaren laa. Ah, mais aligné aligné woo POD waaw non boo xoolee alignement bi rek nga xam ne alignement. Euh, kii Waly la alignement rappeur nga fi. alignement waaw ban alignement rappeur. Eh? nii la alignement bu simple rek. ah Faramaren bi Faramaren laa waaw. dëgg yàlla. Euh, ñu avancé. Hmm. benn instant dama naan Diane Faye. kan mooy sa comédien. comédien. Ah. koo xamante ne maanaam su ma ko seetaanee rek. Ah, xam nga kontaan quoi. waaw ah, man sama comédien kan la sax. <laughs> man maa lay laaj damay delloo <laughs> daal ko seetaanee daal damay. kontaan quoi boo ko seetaanee kontaan. waaw nu mu tuddati sax artiste boobu noonu kii bo kii borom loxo yi. daal laa xam ne moom. man daf may daaneel ko vie. mooy waa ji ñoom waaw loxo yi. kooku daal laa xam ne moom xam nga. su ma ko daal damay kontaan damay bëgg. waa jooju sa dafa am inspiration quoi. ok ils sont inspirés ah, inspiration ni muy def yaram bi xam nga xam nga. Ah, ah, te da koy da siy joué da koy joué normal quoi. da naturellement noonu la demee moom mooy sa comédien. mooy sama comédien quoi. série sénégalaise yi ban série mooy sa série. non man nag man nag série sénégalaise yi man dinaa koy seetaan nii rek mais man. ci wu ma quoi. waaw parce que par des fois li ñuy wane du doon lu nga lu méngoo suñu jamono ji quoi. d'accord loolu euh, sa plat préféré sa coob préféré plat boo xam ne moo la dàqal ci plat yi loo xam ne boo duggee gàlle la fii xëy na nga kontaanee nga tey moom génn. non man moom ceeb ceeb laa. ceeb la ceeb jëpp ceeb jëpp. ceeb bi loolu mel ni kooku Roussa wax ni ñu wax ci suuf. non Roussa ma ko wax sax ma ne mooy sa plat préféré ceeb la mooy sa plat préféré. ceeb mooy sama plat plat préféré. ceebu mooy plat préféré Tidiane Faye numéro 2. waaw eh, yaa ngi tëngëj. maa ngi tëngëj waaw. laaj bi nag yow bokkoo ci. Mhm. tëngëj kan moo fi daax a bëri. tëngëj. waaw <laughs> ki fi daax a bëri. ah tëngëj am na ay champion. non loolu laajuma la ko loolu xam naa ko am na it ñu mën a bëre. loolu xam naa mais xam naa ne daal su fekkee damay wax damay wax ki nga xamante ne moo fi dàq a bëre. bu ma neexee mayam suñu ikiri man loolu laa gis. non mais man dama la laaj Tëngéej kan moo fi dàq bëri yow kay tontu ma rek. waaw ne ma diw moo fi dàq bëri. ci fi dàq bëri kenn kenn nga may jox ki fi dàq bëri. waaw ci li nga jàpp yow. man nangu man nangul ko ak mën a bëreem. parce que dañuy génn si àll bi di bëri. waaw Jibi Sarr ñu naan ko Pëpësa man jàpp naa moo fi dàq bëri Tëngéej. Pëpësa Pëpësa man loolu laa jàpp man moom laa gëm parce que xam naa ko bu baax. ah kon man maa ko defee xam. waaw yow yaa ko desee xam nag. kon Djiby Sarr mën na bëre noonu. Djiby waaw mën na bëre. ëpp sa ëpp sa mais amul chance. non mais xam nga dafa bëri benn combat ci arène bi daanu. ñaari deux ans ñaari combat la bëri ñàkk ko. ok loolu day am mais yàgg bawul dara. ah non sëgam mi ngi ci. waaw ah, baax na noonu la demee baax na man daal gis naa ne daal tëngeej ba mu daj Jibi man moo ma si dàqal bëre ñu naan ko pëpëse pëpëse man ñu avancé non yow laay laaj yow yaay tontu <laughs> euh, dama naan léegi euh, arène bi kan moo fi dàq bëre làmb ji arène nag bokkoo ci <laughs> yaa may jox làmb ji moo fi dàq bi hmm. man de Eumeu Sène moo ma dàqal bëre Eumeu bu tay si nga le grand Pikine moo ma si làmb ji Eumeu Sène ci làmb man loolu laa gis man moo ma dàqal bëre si làmb ji d' accord xoolal da may defal top 5 juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji yow ci ni nga jàpp juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji li mën ma sa top 5 dèjà dugal nga Eumeu Sène. Eumeu mu des 4. mu day ñëw Balla Gaye ñëw. muy ñaata. 3 3 mu des 2. xam nga mu bu leen dicté bu leen dicté sama gars bu leen eh seen yoon neew si noppi leen rek moo wax moom question ñëwal xam nga ñëwal sa top 5 nga ne. Moussène Moussène Balla Gaye Modou Lo Modou Lo xam nga. euh ñëwal maa ngi xool waa damay damay damay day dugu boo day dugu booy ñaan dëgg xam nga waaw booy ñaa dëggul waaw dafa mën a bëre mu des benn dafa mën a bëre loolu kenn waxatu xam nga kenn waxatu qualité loolu lu leer la nga ñëw mu des benn mu des benn <laughs> benn bi kan la sax ñi bëri bëri dafa bëri non moo tax mën na la sax top 5 moo tax mën na la juróomi mbër yi daax a bëri ñi nga jàpp am naa 4 4 déjà waaw am naa 4 waaw doomu dangu sax si ñu daax a bëri si la bokk doomu dangu ba léegi bëri bi muy bëri bi mu war a bëri mhm. bëreegu ko macha allah mën na bëree moom loolu moom bi dina fanaan xam nga boo xoolee combat arène da ngay yàkkamti dem rek bëri ja noo daanee rek baax na doomu daangu dafa soxor mais bërëm bërëm bërëm bërëm dëgg bërëm dëgg hmm. non xeex la gars yi gis góose bi góose bi mais moom bërëm dëgg dëgg dëgg wane ko ok kon daal doomu da nga koy ci top 5 da nga ko si dugal ndax ba léegi ba léegi àgguñ fa foo xamante ne nii bërim war na mën a feeñ nit jëlul tànkam ba mu war laa mën a daan non mais bëri na fi combat yu leer waaw bëri na fi

d'abord nga am fit ba pare. fit moo ci ëpp solo. bo dama lay limal li nga xam ne danga ma limal dama la ne jox ma benn benn bi ci ëpp solo. fit moo si ëpp solo. fit moo ëpp solo ci mbër. parce que non dama lay décortiquer. non ñëwal rek yow jox ma benn rek samay question laa yor. waaw dafa am nu muy doxee. yow jox ma rek benn ne ma bii moo ci ëpp solo. bi si ëpp solo. waaw fit fit bëre entraînement ak gàllaaj ban moo ci ëpp solo. xam nga boo amee fit. Mhm. mën nga def yooyu yëpp mën nga koo def. fit moo ci ëpp solo. moo si ëpp solo. léegi yow mhm. nga war a bëre ji un jour. Mhm. jour combat bi ñu woo la ne la carte téléphone alors Tidiane Faye numéro 2 euh, tey de sa fit dafa am règlement bu wàcc règlement bu bees. Mhm. yow ñu ne la sa fit. Mhm. sa bëre sa entraînement sa gàllaaj foog nga bàyyi ci benn ban ngay bàyyi ci benn. bu boobaa bi may bàyyi gàllaaj laay bàyyi. sa gàllaaj ngay bàyyi. waaw gàllaaj lu tax mënoo bàyyi bëre bi. non non du ma bàyyi bëre bi parce que bëre bi moom laay dem defi. moom laay yóbbaale lu tax léegi lu tax mënoo bàyyi entraînement bi. entraînement bi. Hmm. entraînement bi sax parce que da ngay entraînement pare doo ko dem bëri. léegi lu tax mënoo bàyyi fit bi. non fit fit li tax mu garaaw mooy nit ki bu amee doole te amul fit du mën a def dara lu. léegi ba ci daal galaaj ngay bàyyi. waaw xam la moo tax ma la lool. nit préparé na combat sans galaaj dem daal yóbbu fit yóbbu jom yóbbu jàmbaar daal nit préparé na galaaj yëpp amul fit dem ñu daan ko. kon amul parce que non galaaj. gàllaaj si si làmb la bokk mënu ko génn si làmb mais dama la bëgg xamal ne rek maanaam fit lu mu a mën a may ah par des fois di nga gis koo xamante ne dafa am gàllaaj mais amul fit day dem daanu ragal a koy daan nga gis koo xamante ne amul gàllaaj amul dara dafa am fit dem daan dégg naa la euh, bi nga dalee seetaan làmb ba tey ban combat moo la gën a marqué ci làmb combat boo xam ne combat boo bëri nag yow combat boo seetaan boo seetaan à la télé wala nga dem stade seetaan ko mais combat bi la gën a marqué ci làmb ban combat. bi ma gën a marqué comme comme nan. maanaam combat boo xam ne dafa des ci sa xel boo bi ma gën a bi ma gën a métti wala bi nga. xamante ne bi ma gën a marqué rek mën mën na la métti mën na la neex. mooy combat combat Modou Lo ak Eumeu Sène. ban ban bi mujjee mujjee. deuxième bi waaw boobu noonu. ba léegi nii buñ ko tegee sax du ma ko mën a seetaan. moo la gën a marqué ci làmb. moo ma gën a moo ma gën a daf ma marqué ba pare métti ma su ma waxee dëgg parce que ëmma nga supporté woon waaw man moo moo nekkoon sama te gëmoon ni war na ko mën a daan ak si manière ko daanee ba léegi nii ak manière bi waaw du ma rek ma ko bëgg sax seetaan combat boobu la gën a marqué ci làmb moo gën a marqué ci làmb combat boobu noonu d'accord ba léegi nii suñuy toog di ko wax nii sax du ma bëgg sax ñu siy wax parce que ni mu demee dafa métti d'accord on avance un peu euh, Tidiane Faye mhm. ci ténor yi mbër yi nekk ci kaw mhm. ban mbër nga ci seetaan rek ngay génère un jour at bi génn seen diggante kenn war a jëflante nga war a bëreeg moom mbër boo xam ne da ngay rêvé bëreeg moom. xam nga boo xoolee comme ñun niveau buñ toll buñ sañoon dañuy bëree ñëpp xam nga Modou Lo buñ sañoon dañuy bëree moom. Balla Gaye waaw mais ma kenn may jox kenn koo xam ne dangay ngay rêvé bëreeg moom parce que loolu day am. mën nga rêvé attendre la le sommet mais dañuy am di fois benn mbër boo xam ne boo koy seetaan da nga naan ci bës bu arbitre sifflé woon génn suñu diggante. ndax mu doon koo xam ne dangay ngay bëre ak moom kan la ci mbir mi mën mën na doon Balla Gaye mën na doon Modou Lo. waaw mais jox ma kenn. kan Modou Lo Modou Lo Modou. da nga bëgg a bëre ak Modou Lo bëgg a bëre ak moom waaw. da ngay rêvé un jour toll ci benn niveau arbitre sifflé sa diggante ak Modou Lo. ma ak moom. rek ñu wara reporter modlo à gauche Tidiane fay deux à droite arbitre bi sifflé na genn sen digënté rofon nañu rofon nañu modlo Lo Tidiane fay numéro 2 Tidiane fay numéro 2 modlo lool lool dama koy bëgg parce que qualité yi muy bëré da koy réné dama koy réné jaxasok modlo lér lér na ma suma tollu won niveau mu tollu suñu bëré mëna ko daal yalla xamna lool parce que day maye si ay bëre si day may si biir bëre da lay may loo xamante ne boo amee fit da koy daan su fit bi ma doon wax ñëwaat bëre na fi ay mbëri yoo xamante ne fit moo tax ñu daan ñàkk fit moo tax moo tax moo tax ñu daan ñooñu quoi rêvé naa toll si niveau boobu ñu ne Tidiane Faye Modou Lo aca gis gisu gara na ko xeex a bari xam naa moom mooy ñëw <laughs>